Macky au moment des des émeutes des problèmes des problèmes à à monde mais il Macron yónnee nañ fi ay nit ñu ñëw fi benn jigéen bu fi ñëwoon dama fàtte tur bi bindoon naa ko si vous vous rappelez bien dañoo dem ci Macky Sall ci Macky organisation la dem ji Ousmane Sonko ak yeneen ak yeneen la France mais bëgg nga xaalisam la France mais bëgg nga alalam la France mais bëgg nga dem dëkkam euh, naani fa café ñëwaat au fait euh, li fi jot a am ba pare maa ngi lay dégg nga ne biñ ko euh, defee kii bi c'était un acharnement parce que buñ ko joxee ay mais c'était pas un acharnement ñaari ñaari ñaari euh, avocat Ousmane Sonko lay ni ce sont des avocats de l'État <laughs> bon les tay des fois ñu jox avocats de l'État deug le pôle pôle de truc d'avocat de Sonko la ñoom it ñu ñew né d'accord ñu <laughs> benen juge ñew <laughs> xol ne peut-être virgule bi manqué na ci mu parce que effectivement ñi virgule bi mo ci manqué ñële ñëwaat ci beneen dossier encore en fait c'est comme ça c'est la guerre guerre. Uh-huh. mais vous vous vous ne pensez pas que les techniques pendant 55 jours ci ci ci ci këram. barricade ko alors qu'il devait aller même en prison même. loolu acharnement. Ah, est-ce que bëggul woon daw est-ce que. daw jëm fan. xaw ma xaw ma li ñu mënul ci baa jaxate ba mënuñu ko sax takkal lam mu ñibbi këram dem tabaski ji la preuve en est que Ousmane daw na fi dem Ziguinchor mais dawul quand même parce que ba dem ñep xamone ni nañu jor la. waaw mais dafa daw parce que xam na ne gars yi duñ ko jëlee ji jor mais est-ce que ku ku ku kuy kuy daw dina genn ne maa ngi dem bërëb sanga euh, non maa ngi dem bërëb sàngam. di tàggoo quand même ma la nga wuy ji fi kuñ fo da ngay wuy ji. ñun jar ñuy jël ci ku ko koo ñu wuy mom mom kay mom kay bañ na ba euh, waxul won damay dem bu duma wuy ji rek mom dafa dafa dafa décrété woon li nga xam moy désobéissance civile. oh là là je t'adore Amina xam nga sama adoré la.

comme li man ni tour sax du ko majuscule du ko majuscule minuscule la leen koy binde mais pourquoi. parce que yo la que lañ ma jangal man je ko samay que je ko samay que non mais lu tax opposé ci parce que ça avait passé ci ci rek dafa wara mëna passer wa ci ci bu ñun yar suñu ñun

mais peut-être ñom ñun ñoy sen bête noire. et bi pas opposition bi sax ñu ci xaar ay ay xalé yi ndaw Barthélémy euh, Barthélémy Diaz Thierno Bocoum Pape Djibril Fall ils sont jeunes. ils ont peut-être <laughs> ils ont ils ont peut-être l'âge de l'âge du président Diomaye wala ñu ñu ñu ñu tolloog mo wala ñu mag ko mais quand même. arrêtez dès que tu rentres dans 40 ans il y a plus de jeunesse moo tax ñuy jël poste yi borom 40 ans yi di leen jox ne la on a donné ça aux jeunes ça c'est pas la jeunesse. ah mais kay magi ce sont magi démb bi ce sont ça les jeunesses. magi démb bi lañ fi doon gis kan ay ay pas yu 60 dama ne la ñu doon occupé suñu yenn poste yi bu ba 40 ans dañuy 40 ans c' pas c'est plus jeune ça. mais bu ñu doon gis ay 60 ans je te dis que je te dis que mais même avec les directeurs là il y' a un danger parce que si tu prends un jeune boo xam ne mosul laal million nga jox ko direction boo xam ne il gère des milliards xamu nu mu koy gérer si tu fais pas attention, c'est cette direction-là va, euh, il va foutre cette direction-là en l'air. Hein. Ah si. mais mhm. mhm. ah. mais directeur aussi conseillers ñu ngi ci avec des jeunes aussi c'est c'est un peu risqué aussi nga jël direction ak ay milliards teg seen loxo ño xam musuñu ko téy musuñu ko laal les tentations il <coughs> y a tout hein il y a tout il y a tout hein euh, mais je te dis que Ousmane Sonko ken musta salfaañe ay àqame ki fam on est dans un pays de droit ki ñu salfaañe ay àqame ki fam moy ba Diakhaté ñëpp gis nañ ko parce que Bara ñay demb dañ ko convoquer ndax diffamation té ken jëli jiwu ko te li wax dafa ñaaw ci sëyu jigéen la dugg jigéen la jël teg ci deram li may wax naan jigéen fii Sénégal au lieu ñu teg ko fii fii lañ ko teg li ma naan fii Sénégal nga nekk fi jigéen nekk fi mbaam moo ko gën parce que mbaam mi la ñu gën a respecté sax ke jigéen bi jël lu ñaaw lu ne teg ko ci deru jigéen la ngay wax yépp dara leerul ci xamoo ci dara pour après yow nga dem toog ne baal na ma baalaax parce que ci genre yooyu rek lay mujjee baa jaxate dafa wax ay kër mais dafa indi preuve maa ngi dégg ñu naan Bara Ndiaye dafa indi preuve ba Bah Diakhaté dafa indi preuve. mais Bah preuve yi mu joxe est-ce que baax na. juge bi moo décidé xaw ma juge bi peut-être moo gis ne peut-être preuve yi doyul. wala preuve yi baaxul. xam lu tax mu def ko. Bara Ndiaye même bu indi woon ay preuve war nañ ko laaj ne ko preuve yi foo ko jëlee parce que Bah Diakhaté dañ ko laaj ne ko preuve yi foo ko jëlee maa ngi toog preuve yi muy wax ci Thérèse Faye Diouf fan la ko jëlee une brave dame yor ay njabootam. nekk ci jàmmam nga nekk góor jigéen nekk càppa